Ousmane Sonko wàcc na ci otoom Ousmane Sonko en ce moment wàcc na ci otoom gis ngeen chef de protocole boobu nekk ci ginnaaw moom Ousmane Sonko wàcc na ci otoom en présence de ses avocats mais également en présence de la GIGN Ousmane Sonko ngi noonu wàcc na ci otom avocat certes kii di maître Bamba Cissé mi ngi fi waaye gis nañ également gis nañ maître Bathily waaye également fii ñuy wax ak yéen nii gis nañu ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko mu mel ni ku bu am lu muy lijjanti ci otoom gis ngeen ko noonee sa gën a kan lay waxal lan lay wax nous ne savons pas day dem wala demul nous ne savons mais du ñàkk di ngeen ci am lu leer léegi léegi léegi parce que président Ousmane Sonko wàcc na otoom fi mu wax yéen nii mi ngi wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa GIGN président Ousmane Sonko ma ngay dox ma ngay dox di dem moom président Ousmane Sonko fan la jëm kenn xamul est-ce que day dem wuyu ji kenn xamul Ousmane ma nga noonu di dem ma nga noonu di dem moom président Ousmane Sonko changé na oto dugg na ci benn oto benn Mitsubishi bu weex moom la président Ousmane Sonko dugg fan lañ ko jëmee kenn xamul mais ce qui est mooy changé na oto est-ce que day dem directement tribunal est-ce que këram la jëm qu'est-ce qui est de tout ça nous ne savons pas mais Ousmane Sonko ma nga noonu daal